borom daaru rakku seex Modou Kara Mbacke nooree ni eh, fii jamono toll nag. Mhm. moom war nay wax bokk na ci ñi war di wax. Mhm. ndax dafa tolloog ñun génération. te fi jamono toll yàlla xamloo na ko ko. Mhm. ba à chaque fois soo toogee ak moom bu communiquer da nga xam ne kii moo war a wax. moom borom daaru. mu doon koo xam ne ku fonk ay kilifaam la. waaye yamu ci dëkkam boobu di sikóor yi nga xam ne maam Thierno biraayim moo ko sañcoon ca jamonoy tawat jooju def na fa ay at yu bari ginnaaw bi mu jël dëkk ba rafaatalee ko sëriñ Ousmane Mbacke nooree ni di doomam di wajur Cheikh Modou Kara Mbacke ak sëriñ borom daaru mii borom daaru nag dem gën a yeesal dëkk ba daal di fay dëkk a nekk fa ak taalibe yi waaye yemu ci ñenn ñi nga xam ne ay taalibe lañ te nekk ndakaaru wala ci yeneeni gox te seen loxo jotul seen ginnaaw ah. te yor seenu njaboot mu ñëw dëkkal leen fa yor seen lépp ndeysaan macha allah kon kooku mat naa wane uh-huh. dem nag demoon naa sikóori ziyaare ji ko uh-huh. waaye li man neex ci moom uh-huh. mooy tabe baax na mais tabe gi ëpp doole mooy tabe ci sa daraja macha borom daaru noonu la lay def. yaatal nañ ñëpp bu la gisee day mel ni ku la xam fukki at. Mhm. te ak jotam lu muy ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk saa su ngeen gisee dana la may ci ak jotam. Mhm. loolu am na solo. Mhm. sëriñ bu mel noonu kon nag mat naa jege mat naa siyaare mat naa ñaanal. ndaw ñi xam nañ loolu ci moom. xam nañ loolu ci moom. te it saa bu communiquer communication. dafa am solo. ndax li ma la wax sànq ne la yàlla xamloo na ko jamono. te fii jam ji jamono toll nag comme ci jamono ji lañ nekk. Mhm. ak fii situation jamono ji toll. Mhm. moom bokk na ci ñi mën a communiquer ak ndaw ñi. parce que ku xam jamono moo mën a wax ak ñi nekk ci jamono ah, ji. mbir boo ko xamul xamoo ko. Mhm, moom it xam na ko ah, macha allah yàlla xam xam na xam na ko. kon mi ngoog yàlla ko yàlla dëgëral kàttanal ko. Mm, amin amin eh, Cheikh Ibra Diop borom ñaari téléphone yi. Euh, ki nga xam ne mooy maam góor soppeeb sëñ Fallou Cissé émission bi nag ndeysaan ñu koy déglu dafa bari. waaw ah, Cheikh Ibou Diop de jàmbaar la ci jaxate directeur cabinet maire Abdoulaye Ka. Uh-huh. léegi laa jógee foofu maire yi. Uh-huh. séminaire bu fa am. Mm-hmm.